ñun ñëpp xanaa delloo siyaar di yeesal kóllëre nga xam ne dox na ci diggante askanu lébu ak sëriñ Touba yàlla dafa dogal bi sëriñ bi dugg see ndakaaru nekk ci ndakaaru tubaab yi denc ko ci bërëb magu lébu yi dañu dajaloo seeti tubaab bi xamal ko ni ko kii dey dañu bëgg nga dox nu ko ñun ñu téyal la ko boo ko soxlaa nga laaj nu ko waaye daal du nu mën a nungu daal nga téye ko di am foo koy tëj tubaab yi nungu loolu adduna nag di dox ba fii ma taxaw bi nu fi nasaree jumaa ji sangu bu tedd bi Serigne Saliou mbakke ne sër ko ñu làmb ko mu am ndox ñu seetiwaat ko mu ñaan ca la cay ñaan joxe ca ndigal sunu baay bu tedd ba Mouhamadou Lamine Bara ñëw fii ci Ndakaaru ànd koog suma wayjur Alaaji Basiru Jaaj Maram Diop Serigne Ndakaaru ak président ab Ablaye Wade ñu teg xeer wu njëkk bi yàlla nag di def sëñ Sidi Matar def ca la mu ca def lépp ci lu baax wuy ji sunu borom sëñ Muntaxa Mbakke ñëw nag wax naa ko ko léegi ci kër gi ni ko nga indaale mbég mi nag mooy ubbi jumaa ji ndax sa baay Mouhamadul Bachir li sunu warugar nag ñun fii ñu def juma ji tay magu lébu yi xamoon nañu batine bi ndax fi lañu daan julé iit way sëñ touba nak moko feñal te jëmmal ko waxna naa bi léegi niko ñu ngi lay ñaan nga ñaan sa borom ba yomal xiyam suñu borom def boole fi ci pays yi muy ramo li suñu waru gar nak moy sante yalla ak yonenti bek ak touba ndax juma ji kenn dootu ko dekkati te fu mu nekk ndakaaru kon lébu yep dajal nañ sama tour lu mat juróom fukki kilifa tay ño demone setti Serigne Sidi eh, ño demone set Serigne Mountakha xamal ko niko ngan gi ñun la war kon ñun kat indi nañu suñu addu ji nga xamni lan lay berndele ñuy sante bu baax njabotuk serigne Touba sante bu baax murit yi nga xamni ño ñoo féete ndax faral nay wax ni Serigne bi legi niko mourid murit yi li nga len digal ñu ngi ci ñu ngi ca taalibe jàng xasida jàng alxuraan ak liggéey fii ci ndakaaru yàquñu fi defuñu fi lu jaaduwul kon Mbàkke loolu ci yow lañu ko roye ndax jikko ju rafet ma nag wax lenn ci réew mi nanu ñaan jàmm ci réew mi ndax tey ku xool jumaa ji xam ni sembolu solidarité nationale la ndax kenn ku ci ne ñii ñaar dërëm ñii ñetti dërëm ñii juróomi dërëm ñii fukki dërëm ba jumaa ji agsi ki ci def milliard ak ki ci def duubal ñoo yem ca yàlla ndax amaana bu du woon ñaar dërëm yooyu mu ca def kon duñu ko ubbi tey kon ñu ngi sant képp koo xam ne jullit nga te mës dugal ci loo yëg ak loo yëgul ñu ngi sant ñëpp di ñaanit bés bii di suba na ko ñëpp def ci ay teggin ak yar akuk taalibe bañ a xatal kenn bañ a xuloo bañ a saagante bañ xeex te daal teral sëriñ bi mu ñëw julleeg ñun ajjuma dellu ci tuuba ñaanal ñu jàmm ci réew mi waxaat ni kilifa diine yi nanu leen di wormaal ndax ñooy kenn yi nga xam ne ñoo dëgëral réew mi saaga waru leen saagante waru leen xaste ci seen biir waru leen ndax koo xam ne danga war a dañ laa war a roy nga wara yor jikko Muhammad sallallahu alaihi wasallam lu ban waru la lu ñaaw waru la lu deful waru la xuloo bi nak ci réew mi nan ko dakal ndax amul ndariñ lu bon kenn du ko tontoo lu bon lu baxul kenn du ko tontoo lu baxul kon nit ñi ñu mëna leunte te jàppalante te dimbalante te suturalante li dal mo doon waxtaan wi di gëreem bu baax jeewriñ mbàkk yu fay mi nga xamni mom la serigne bi namoon ay loxom yor barkep ligey bi tay